القطب الكبير نسل المصطفى سيد المرسلين ورضي الله عنه وآله وصحبه وخلفائه المريد التجاني الفوتي ومحمد الغالي ومن أخذ منهم الطريقة التجاني والحمد لله الذي من فضله جعلنا من ذرية المرشد الكبير التجاني أحمد ابن محمد الكساسي وكلهم من فيوضات ربانية التجاني ورضي الله عنهم ونسلهم الشرفاء الوارثين الكرماء التجاني وابنه أحمد الكبير وخليفته أحمد الصغير الذي سار كبير الشأن ووالديه وإخوانه الصالحين إذ كله من أخيار التجاني وأصحابه الأبرار وكل من سلك هذه الطريقة التجاني والصلاة والسلام على نبي العرب المصطفى الرسول الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi ñuy déglu في di ñu ريو fii ci biir réew mi ak ci bitim réew mbokki àdduna bi tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen ko baal te ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolli ñu defal jàmm dolli ñu defal tawfiq ak taysiir ñu ngi ziyaara mbokk jullit ñëpp waaye nag di jël nuyoo yi ak ziyaar yi di ko teg ci loxol tabaarakallahu sunu wéyjur alxalif si alxaaji muhammadun il نجين الخليفة العام لأسرتي تفسير أحمد بارو نجين نون لا نيو تبارك الله ناتانغوم ييغا خامني نيوم لا بوكال ريومي تبارك الله سونو ويجو سيرين بابكار سي منصور الخليف سيرين محمد المنتقى مكة تبارك الله سيرين محمد المختار شيخ محمد الماحي نيس تبارك الله سيرين محمد المختار لاي تبارك الله اك باي الحاج حسن سك تبارك الله تيانبا ak mboolem xulafa yi nga xam ne rek tabarakallahu ñoo ŋànk réew mi noonu it dem ci kilifa aada yi tabarakallahu tàmbale ko ci président tabarakallahu ba ci ñi mu njaboote ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye it dinañu ñëw fii ci tabarakallahu ci biir kër gi ziyaara tabarakallahu sunu xilif sunu kilifa macha allahu euh, directeur Ibrahima Ba macha allah ak sunu jigéen soxna asiyatu ay dara ñu ngi leen di ziyaara bu baax tabaarakallahu waaye mbokk yi ñu ngi comme niñ ko daan defee rek fii tabaarakallahu ci seen seen télévision RMB TV macha allah euh, comme ni ñu ko daan defee euh, tabaarakallahu ngeen ànd ceeg seen mbokk al imam alxaaji ahmadou baro njegéen macha allah euh, tabaarakallahu xanaa li ñuy njëkk a yëkkati ci sunuy kàddu rek mooy euh, euh, di jéggulu macha allah ci jotaay bi gëj bi mu gëj a am waaye nag lépp rek nekkoon ci ay yitte jamono waaye nit rawatina yu mel nii rek la nag tabaarakallah waaw ñu ngi ndokkeel ñëpp nag ci gàmmu gi ñu jóge macha allah ak xew-xew yi fi jàll yëpp rek macha allah seen émission léppi diine waroon di ci ànd ak yéen waaye nekkoon ci tabaarakallahu mbirum jamono rek. masha allah waye alhamdulillah ñu ngi koy jéglu bu baaxa baaxa baax xana mbokk yi tabarakallah di ziaré ñëpp rek e, té itam nak di ñaan ci réew mi jamm waaw di ñaan ci réew mi jamm di ñaan ci réew mi jamm ndax masha allah ñëpp xam nañu ñu ngi dëgmal yo nga tabarakallah bu gor gor lu amul rek e, fitna mën na ci judd wa suko defé nak képp kenn ci kuy dundu ci réew mi mo xam goor nga mo xam jigen nga mo xam kilifa diine nga mo xam kilifa aada nga ak lo meuna doon ak itam nak taxaway bo meuna am ci réew mi euh, nek na ci di sa responsabilité ngir jam meuna am ci réew mi ndax itam nak mag ñi sha allah euh, ñu ngi ñaan guddi ak beccëk ñu ngi ñaan guddi ak beccëk ñu ngi ñaan waye ñaan nak dafa am lo nga xamanteni ni sha allah mo koy conserver mo koy ndax itam nak bu fekke dañuy wote jàmm ci rew bëgg jàmm ji taxaw ñun ñëpp rek dañuy andando dox ci lo nga mo ni jural jàmm su ko defé jàmm joju mbokk yi ñu ngi koy ñaan ci rew mi waye yit di ko ñaan ci rew jullit xana sax ba ca sunu mbokk yi ya nga xamanteni tabarakallah ca Palestine nga xamanteni ni sha allahu nattu bi reyna na yaatu na metti na allah ñoom itam ñu ñaanal len yalna na delo ci si jam non yi nga xamanteni tabarakallah tabarakallahu leen sepp rek di jëfëndiko seen doole yalla dénk yàlla na yàlla delloo si seen xel waye nit yalna yalla yàlla ko jël doole jox leen ko ñoomi tabarakallah tabarakallahu ñu mëna jël seen matukaay yalla mëna ko yalna ko yalla def ci walu ñaan sax mbokk yi ci la ñuy tabarakallahu wax ndax kat boobu leg dañuy dégg nañu ñaan jam nañu ñaan nañu ñaan waye bis bu nek rek ñu ngi gën a soxla ay ñaan waaw bés bu nekk ñu ngi gën a soxla ay ñaan mu mel ni sax bu fekkente ni da ngay jëfandikoo jëfandikoo sa xel mën nga ni xëy na ndax ñun li ñuy ñaan yàlla yàlla mu ngi koy nangu waaw ndax tabaarakallaahu boo jàppee rek am na juróomi at yu tegaloo yoo xamante ni ci fitna rek la ñu nekk nekkul ci réew mi dong it waaye tabaarakallaahu àgg na ba ci réew yi ñu wër te bés bu nekk ñu ngi woote ñaan kaamilu alquraan yi Euh, azkar yéeg yëpp bari lool waaye teewul bis bu nekk ah macha allahu xat-xat yaa ngi gën a bari su ko defee euh, yàlla mi nga xam ne moo mën a seral lépp nag yàlla na nu yàlla seralal lépp rawatina suñu réew mi nga xamante ni ñu ngi dëgmal loo nga xamante ni tabaarakallahu comme ni ñu ko waxee faaw taxawaay am faaw rek ñépp àndandoo bëgg a defar waaw faaw rek kenn ku nekk li ngay woote ni ci réew mi laa bokk. ci réew mi laa dëkk te réew mi laa bëgg kenn ku nekk faw nga dëggal loolu ci sa xol bu loolu amee rek ndax bu fekkee menn mbir daf nekk mbir moomu ñu ñëpp li ñu bëgg mooy mu ñoŋ te mooy réew mi defe naa warul am tabaarakallaahu lépp lenn lu war a gàllankoor réew mi waaye nag bu fekkente ni li ñuy bëgg di ko yuutu te nu wane ko nit ñi teg ci seen bët moo way ku nekk bu boba nak moy jur tabarakallah jamm won ñu ginaaw lolu nak ñu koy tabarakallah ñaaxé suñu mbokk yi nga xamanteni ño am lu ñuy wut tabarakallah ci réew mi nañu andak dal tabarakallah yalla dafal ñu sutura mbokk yi dafa am benn borom xam-xam sha allah tabarakallah mu nekkon sufi nekkon jambar ci jamonom ñu nawon ko lolu ci jamu yalla mu defit tabaarakallaahu taxawaay bu ne ci yar ak tabaarakallaahu yarle ci yeewu ak yeete ñu di ko wax ibrahim ibnu adham mu nekkoon tabaarakallaahu xakim la daan jiiñ luqmaan alxakim dañ ko ko daan jiiñ ci tabaarakallaahu xel mu sel sell waane ci xam boroomam ak itam nag nangul gi ko borom bi subhaanahu wa taala nangul nga xam ne li mu saxoo woon jëloon ko def ko mu yitte boppam mooy xool fu yàlla nekk rek mu dëgmal ko daan ko jaral tabaarakallaahu mu dëddu nit ñi nekk ci ruqam diir kenn du ko gis kenn du xam ci lu mu nekk ndax booba rek tabaarakallaahu nekk ci jaamu yàlla nekk ci jaamu yàlla nekk ci jaamu yàlla xatta àgg na ci nit ñi dañ ko doon namm xeetu namm boo xamante ni buñ ko séenee dañuy ñëw wër ko ñi di ñew di barkelu ci mom ci ñaan ñi di ñew di barkelu ci mom ci xam-xam tabarakallahu lola la saxé ba ben jamono ibrahim momu genn dekk bu ñuy wax basar ci wetu marché bi tabarakallah ni muy doxe rek ñu ko mom ibrahim ibnu adham ndaysan muy dox tabarakallah nit ñi ñew wër ko ndax ku nek da ngay bëgg barkelu ci mom wa ku nek ñi di laaj masala yi muy tontu ñi di sakku ñaan tawati yek yep muy ñaan yalla di ci tabarakallahu indi jamm am ku ko laaj nako wa ya ibrahim nah, ya ibrahim wa ibnu ishaq non lañ ko daan wanyun wa ñun dañoo ya ci téré yalla bi xanaa du yàlla moo wax ci alquran ne ud'uuni astajibu lakum waaw xanaa du yàlla ma wax mu ne ñaan leen ma ma may leen ndeysaan ibrahim ibnu adham ne leen ahankay yàlla subhanahu wa taala moo wax loolu ci alquran te itam nag ba tey dañu ci su ngeen ko ñaanee rek mu may leen ñu ne ko waa ñun dañu seetlu yow Ibrahim ab diire ngi ñu nekk ci xat-xat jamono metti loolu ci ñun bekkoor gi tabaarakallaahu mar gi macha allahu euh, tabaarakallaahu ñàkk taw géeg yépp daje ci ñun te boobu ba léegi ñu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu teggil ñu ko waaye mu mel ni yàlla daf ñoo déggul ndax saa sunu xëyee rek yëf yaay gën a tar Ibrahim ne leen waaw waaye yéen naka la leen di nangule te ma seetlu fukki mbir di fukki ay jikko yo nga xamanteni ni ngi ko saxo te jikko yooyu nak ko mu nek ci yow do ñaan yalla lu yalla nangu ah gaay xolante ah kenn ku nek xol sa morom fukki jikko ah wa sëriñ bi wax ñu jikko yooyu yan la ndaysan ibrahim ne len jikko yi bi ci njëkk mooy araftumullaha waaye nag walam tuadduhu xaqahu waaw yéen ñépp xam ngeen yàlla waaw xam ngeen yàlla subhanahu wa taala nangu ngeen ne yàlla moo leen amal amal seeni wayjur nangu ngeen ne lu ngeen am ci wërsëg yàlla moo leen koy jox nangu ngeen tabarakallahu su ngeen wéradee ñaan yàlla moo leen di saafara yooyu yépp nangu ngeen ko wa enak taxut ngeen yox jox yàlla cëram waaw taxul ngeen jox yàlla akam xam bi mu moom ci yéen loolu nag mën na gàllankoor ay ñam waaw araftumullah waaye walam tuaddu xaqahu waaw xam ngeen yàlla waaye nag joxu leen yàlla waaw wax ko fi alayhi wax na ci xadis ne inna li nafsika alayka xaq wax na ne jullit bi ci jëmmi boppam ameel na bakkanam bi maanaam ameel na jëmmi boppam xaq lu mu ci soxla na dem jox ko ko mooy sa bakkan bu soxlaa nelaw te mu jaadu nga dem jox ko ko sa bakkan bu soxlaa lekk nga dem jox ko ko sa bakkan bu soxlaa naan nga dem jox ko ko sa bakkan yooyu sangu yooyu yépp ci xeetu bakkani doomu aadama la daf koy soxla su ko defee bu mu ci soxla rek damal nga jox ko ko ci ba mu doy waaw mu ne kon inna li nafsika alayka xaq wa li ahlika alayka xaq nee na nit ki it njabootam noonu la ñuy amee aq ci moom tabaarakallahu sunu ko doxalul wala su ko doxalul bu ëllëgee sañ nañ ko koo poñe di ko laaj ndax lii kat ñoo ko moom ci moom njaboot bu la ko yàlla mën loo yaay dundal tabaarakallaahu bu feebar amee yaay faj bu taxawaay amee yaay waaye yor njaboot rek tabaarakallaahu bàyyi noonu bokkul ci responsabilité waa kon nag yonent bi ne dafa am àq boo xam ne àgg na ba ci sa njaboot bu ñu la soxlaa gis ci seeni bët nekk ak yow ñoom ñoo ko moom ci yow waye tabarakallahu dekk bi metti ngay daw di daw rek bo xeye fekk xalé yi yeewoogunu soo wàccee fekk xalé yi nalaw nga nek ci nonu nek ci nonu ba sen yaram laaj la ndax itam nak njabot yaramam dafay laaj ay wayjuram ah ah yaramam da koy laaj daf koy soxla rawatina nak bu ak ñoo xamanteni tabarakallahu ñu ngi dekk ak ay wayjuram ñu di leen gis guddeeg bëccëg tabarakallahu su ko defee loolu ñoom ñoo mom ci yow waye nak wali rabbika alayka haqq wa sa borom nak momi tam dafa am aq bo xam mom moko momal bopam ci yow moy lan bu jaamu jotee nga dem jaamu borom bi subhanahu wa taala te doko ko tikkale wala doko ko ak len lolou mom moko mom ci yow nit ki japp su borom bi soxla bayil, ndax mo gën yey ci kep ku lay soxla su defé muna araftumullah wa lam tu'addu haqqo yàlla mi bind doomu adama nak am set lu gune xam ko demna ag ba ci wax ni wa ma qadarullaha qadrihi waaw yéen daal yéen ngi noonu rek doomu aadama waaw yàlla cieur bi mu mom waaw wa ma qadrihi waye nak wal ardu jamian qabdatuhu al qiyamah joxoo leen yàlla cëram bi mu moom ci waaye jamono ngi ñëw insha allahu yàlla dina boole arsamaan ak suuf taxañ teg ko ci loxoom bi te bu boobaa ku nangul woon da nga nangu waaw nga xam ni kii moom moom lépp tabaarakallahu lu fi taxawal tabaarakallahu eh, su ko defee waaw yàlla ne wal ardu jamian qabdatuhu yawma alqiyaama waaw wassamawatu matwiyatum bi yaminihi waaw wa taala amma yushrikun waaw nah, yalla ne joxu len ma cieur bi mako mom jaamu moy li nga xamne ne la am ci yéen soxlawuma ci len waaw ah, uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imuun waaw ah, soxlawuma ngeen jël seen wërseuk di ma jox ndax ma len ko ëppale waxuma la yit bu ngeen toggé ñam na ngeen ma ca tibbal ndax soxlawuma ko li ma soxla rek moy reconnaissance bi nga xamanteni mo jaadu ci sama ak yéen te loolu rek likoy gëna woné bana dara bala dara xew moy tabarakallah nango jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye nak te selal ko borom bi ne wama wama qadarullah haqq qadrihi xoolal wama umiru illa li yaabudullah man dal digeluma len lu na ngeen jaamu yàlla waaye nak mukhlisina lahu diin jaamu ji it bëggeewuma ko nu nu mu leen nu mu leen neexee n'importe comment rek ngeen ne noonu lañ may jaamu déedéet na sell ah na sell na nekk ngir yàlla na nekk rekk te yàlla tax na rafet na sell comme man mi ngeen koy jox ni ma selli yi ah, na lahu diin ah, su ko defee ñu delloo borom bi subhanahu wa taala ndee bëgg nanu li ñuy ñaan yàlla di ci sonn yàlla dinu ko nangul waaw su ko defee Ibrahim nelen leen loolu bokk na ci seeni gàllankoor waaw ba ca topp yi nag mu ne leen wa zaamtum annakum tuhibbuuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa taraktum sunnatahu waaw yéen ñépp ku ñu nga wane mbëggeel ak cofeel gi nga ëmbal sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jaadu waaw ku ñu ci wax ku ñu ci wax nga wane cofeel ak mbëggeel bi nga amal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba buñ ko tuddee sax nga daanu waaye nag teewut sunnaam sii nga xamante ni moom sallallahu alayhi wa sallam moom la tracé ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala da ko fee bàyyi léeg-léeg situation dina ñëw doo fàtte ni charia nga fàtte ni charia am na nga fàtte ni yonent bi lii la wax nga fàtte ni alquran lii la wax nga doxee ni mu la neexee ndax jamono jooju loolu moo la arrangé kooku nag du ak njullite waaw kooku du ak njullite gu mat waaw waaw te ñun loolu moo moo bari ci tabarakallahu ni ni ni niy doxee waaw léeg bu ñu arrangé rek ñu fàtte yoon wi waaye nag bu ñu demee ba arrangé tuñu nag ñu ne nañ dem xooli sharia wala nañ dem xool hadith wala nañ dem xool alquran kooku nag ñun mooy problème bi gën a posé ci ñun tabarakallahu mu ne kon ku ñu ci wax nga ni da nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di ko manifester nu ne waaye nag say jëf bokkewul ak ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëfee boo waxee ñu xeeb la soo doxee ñu xeeb la kooku nag sallallahu alayhi wa sallama du loolu la nu jàngal ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy di ko topp waaye nag mooy di ko roy walakum fi rasulullahi uswatun xasana moom laa leen jox muy seen nattukaay waaw wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu su ngeen ko dee roy nangu gi gën a gaaw mooy lu mu leen jox te digal leen ko jëf leen waaye nag lu mu leen tere bàyyi leen waaw ah, kon nag Ibrahim nee na yéen de da ngeen a wax ni da ngeen a bëgg yonent bi waaye nag seen jëf waroona ak jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa وليس نفع على حب بلا عمل آه. شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه انا امول جري غاني داما بغ نيتك تبارك الله داما بغ يوننتي بي داما بغ تبارك الله لو باخ تي سي جيفك لب رك وورو اك جيف يوننتي بي وايي وورو اك لو باخ سوكو دافي مو نيكون وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تبارك الله وتركتم سنته باتي توب إبراهيم نلين وقرأتم القرآن وأنك ولم تعملوا به آه. من لين ينب جانجن القرآن آه. ريومي تبارك الله اللي في نكتي أي حافز كن منكولي آه. waye leg leg nga gis jëfu wala waxu kuñ ne la kii boroom xam-xam la nga ne kon moom alquran boobu mu doon jàng fan la nekk ci dënnam ndax itam nag amul njariñ alquran nekk ci sa dënn te feeñul ci sa wax wala mu feeñ ci sa jëf kooku moom ah waaw ah, tabaarakallaahu waaw ah, moo tax benn boroom xam-xam wax yow mi nga xam ne yow la ñuy jiiñ ne yaa yaa xaafis alquraan yow mi nga xam ne yow yaay yow yaay yow yaay ki ñuy wax ne moo mokkal alquran waaw mu ne yow yow mokkaloo ndax amul njariñ ñu ne mokkal na alquran te tabaarakallaahu doxinam ak waxinam mag yépp waroo ak doxinu alquran ak waxinu alquran waaw mu ne kon ah qara'tumul qur'ana waaye nag walam taamalu bi ndax alquran boko jangé dégg ko amna lo xamanteni ci wax wala ci jëf dang ko jommale sa bop su ko défé mu né kon qara'tumul qur'ana waaye nak walam ta'malu bi seen jëfin yépp worona ak niko alquran bëggé ibrahim abduham ibnu adham néna euh ah, li bokku na ci li nga xamanteni tabarakallah tabarakallahu fay galankor seeni ñaan wa bi ci top mooy wa akaltum nicmatallahi waaye nag walam tuadduuhu waaye nag walam tashkuru waaw waaw maanaam lekk ngeen xéewali yàlla kenn ku nekk saay soo xëyee nga yëg ko ak nga bañ koo yëg yaa ngi ci xéewali yàlla subhaanahu wa taala ndax yàlla moom loolu la séq ak doomu aadama di ko defal teraanga ba xëy ñu dellu ci moom loolu moom ñun nag la ñu jàppe teraanga xëy na dañoo desee dégg luy teraanga waaye boo génnee ci mbedd mi rek di nga yëg ni teraanga dégg la la yàlla defal ndax di nga romb ku bëtam muuru te yow say bët muuru wut di nga romb koo nga xamante ni tabaarakallaahu mënul jóg fa mu toog ndax tabaarakallaahu handicapé ah di nga romb koo xamante ni dafa bari dafa bari boo duggee ci hôpital bi boo duggee yépp rek dinga nga yëg xéewal gi yàlla def ci yow waaw boo génnoon léegi di dox am ko nga xamante ne ñàkk njatabal na ko ba mu xëy di la tàllal loxo te yow xalaatoo ko loolu yépp wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha waaw yàlla nee na su ngeen doon jéem li ma leen defal ci xéewal mënu leen ko takk bu leen ko sax jéem benn xéewal mënu leen moo koo delloo ci njukkal ah benn xéewal mu ne kon akaltum nicmatallahi walam tashkuru bi waaw ngeen lekk xéewalu yàlla waaw waaye nag santu leen ko waaye doomu aadama jamono junne li ko war ci digganteem ak boroomam mooy di ko sant te xoolal yàlla ci maandoom wax ni kat ah bu ngeen ma santee nag ba ma yëg ni sant ngeen ma ma dolli leen ah tànk bawu leen di ma sant man du ma bàyyi ci di leen dolli xéewal waaw waaye bu fekkonte ni yàlla dafay jëflantek ñun ci ni ñu koy tooñee kon jafe-jafe yi dana gën a bari ndax xoolal dinga gis ko nga xamante ni dafa fanaanoo moy yàlla waaw fanaanee def lu naqari yàlla waaye bu xëyee dal ci xéewalu yàlla boo xam ne moom sax du ko fooge dal ci xéwali yàlla goo xam ne moom sax du ko fooge te pourtant dafa fanaanoo yàlla mere ko di nga gis koo xam ne nag dafa fanaanoo jaamu yàlla waaye nag xëy ndeysaan ci xéewalu yàlla ba tey muy ñaanaatu lu mu ndékkee wala sax mu bañ koo am toog ndax am na ñoo xamante ni euh, tabaarakallaahu seen ngor mayu leen lu ñu ñàkk-ñàkk dañuy toog rek garder sen dignité am ño ñoo nak ñom nag ñoom bu ñu rek dañuy sol sen dal dem seetu hada huwa al farq bayna al faqir wal miskin wa nga xamanteni ki ma sha allahu su ñaké du tax mu genn kërëm wala muy dem fenen di ko di uti day tok rek na ma ngi xaar yalla parce que rus sax genn ñaan wala mu wax soxlam am koo xam ne nag amul problème boobu moo tax yàlla na ba muy lim sax ma innama sadaqaat lil fuqara balaa ngeen di lijjanti kenn lijjanti leen faqir ndax moom ñàkk na te kenn xamalu ko loolu mu ngi gàdd di garde dignité mën na faatu ci biir këram te du ko wax kenn su ko defee nag ka topp doog caa topp su ko defee bu ngeen lekkee xéewalu yàlla moo xam nu mu mën a doon xéewalu yàlla nag du lu nuy lekk rek waaw du lu nuy lekk rek waaye kenn ku nekk boo xoolee sa jëmm rek taxaw xool sa bopp di war nga yëg ci yow xéewal bi yàlla di def ci yow kon nag Ibrahim ne te yéen li leen yàlla di defal yépp mu ngi ànd ak ngeen xalab ko bi maanaam santu leen ko ci ndax xam nga euh, euh, tànk maanaam làmmiñ bi la yàlla jox rek bu la ko xañoon dootoo mën a wax sa soxla waaye làmmiñ boobu ëllëg nga wëlbati ko di ci tudd yàlla di ci sant yàlla di ci wax lu baax ci yàlla di ko wax ci jaamu yàlla yi waaye xoolal làmmiñ boobu ngay utiliser di ci di ci wax lu bon ci ci ci ci ci ci ci jaamu yàlla yi ah xoolal tànki nga xëy waroo woon dox lenn lu dul dem liggéeyi wala tabaarakallaahu dem doxi mbokk walla dem xool jullit bu soxla nga ànd ak moom ci ndimbal ga walla walla walla yi nit war a mën a dox bari na waaye xoolal yaa ngi dox bés bu nekk rek di fëgg kër sëriñ si ngir lu gën a mën li ngir lu mën a yàqal doomu aadama waaw sa tànk yooyu ngay utiliser te pourtant am na koo xamante ni yitteem yépp fa mu tëdd mooy mën a dox ba dugg ci jàkka ji donte tabaarakallah bari na am na koo xam ne yitteem yépp mooy bu ko yàlla delloo woon ay gëtam yitteem yépp mooy di ci jàng alquran di ko mokkal waye yow lila yalla denk yeb say so soo xëyee yaa utiliser xewolu yalla di ci moy yalla wax kooku nak yalla nañ ci yalla musal waye ñak jom mom mu tawee fofu yalla nu dimbali su ko defee kon mu ne kon yéen ngi lek di dundé xewolu yalla waye xewolu yalla yoyu ngeen di wëlbeuti han ah, di ko moye yalla bi ci top mu yéen ñëpp it yéen a ngi nangu ne seytaane seen noon la ndax yàlla moom moo ñu ko njëkk a wax inna seytaana lakum aduwun mubinun fattaxizuhu aduwa waaw yàlla nee na seytaane day na ngeen yëg ni moom mooy seen noon bi gën a tar waaw kooku moom nëbbul ak nooneelam ci yéen waaw xam nga nit di nga dëkk ak moom mu noonu la lool waaye du la ko wan ndax bis bu nek mu ngi lay xol di re di ti waye tabarakallah sa dara neexu ko seytaane nag moom dafa taxaw defiye yalla defiye doomu adama ne na ngeen xamne may sen non wa wa wa na ngeen xamne man may sen non ndax sama yitte yep moy ànd ak ñenn ci dugando ak ñom safara nak tabarakallah tabarakallahu ah, yene wuñu dara lu bax ah ndax bu sañon benn xeetu yontu yàlla muhammad wala benn mbindeef du dugg àjjana ñépp safara ba mu bëggee lool it ca la taxaw booba ba léegi waaw moo tax wax ngeen seytaane mooy seen noonu waaye nag ngeen dem topp ko waaw wa ataatumuhu wa waafaqtumuhu ngeen dem topp ko wuutewu leen dara ak moom waaw li koy wane tey gis nga bari na tabaarakallaahu ay wote ñi di wote di jëme ci walu diine ñi di wote di jëme ci walu tabarakallahu aduna te ñaari wote yoy gis nga wa ñaari wote yoy duñu mës a doon ben waaw waaw nga xamanteni euh, tabarakallahu bu ñu woote woon fii wala conférence nga japp ne dañu lay tankal sax wala dal. tabaarakallaahu nga soofantool ko waaye am na loo xam ne coo ca loolu nga gën a mën a reyee sa temps waaw te wootem seytaane dong la du lenn su ko defee euh, seytaane daal nee na yéen a ngi dëppoo ak moom yéen a ngi ànd ak moom yéen a ngi collaborer ak moom te ngeen yëg ni moom mooy seen noon bi nga xamante ni moo gën a dangereux waaw kon nag yàlla ne fattaxisu aduwa waaw innama yadu xisbuhu li yakunu min ashaabi sair buggul rek lu dul na ànd ak tabaarakallahu gaayam yi rek ñu ànd dugg safara al nañ ci yàlla musal su ko defee kon nag nee na bokk boobu it bokk na ci seeni gàllankoor ba tax su ngeen ñaanee yàlla yàlla du ko nangu waaw bi ci topp mu ne yéen ñëpp ngeen ñépp nangu ngeen ni innal jannata xaq waaw kenn ko ci nekk sa yitte yëpp mooy boo deewee dugg aljanna waaw am na ñoo xam ne sax ñu ngi dund waaye ñoom jàpp nañ ne moom dugg nañ aljanna ba pare yàlla na yàlla bu ci yàlla tas yaakaaru kenn yàlla na yàlla dugal ñëpp aljanna waaye nag nee na yéen daal kuñ ci wax nga jàpp ne da ngay dugg aljanna waaye nag jëfoo benn jëf bu la war a dugal aljanna walam taamalu laha waaw yéen ñëpp a bëgg dugg aljanna ah àjjana dal nangam sangam lu ne lu ne ko ci wax rek ma nga àjjana nit sax legi bu dewe dañ dañ nan la ma nga ci aljana nangam ak sangam te nak suñu jëf yépp ah wanewul sax jëf yi ki nga xamanteni bi dafa bëgg dem aljana ndax itam nak bo bëgge dem dakaru gi rek da ngay tege ci yoon wa fo bëgg dem da ngay lambatu ba am lu leer bo xamul sax da nga lacc barab sàngam laa bëgg a dem fan mooy yoon bi ñu tegle ci yoon nga teg ci yoon bi ak àjjana nag ñun ñëpp yàlla wax nañu fan mooy yoon bi waaw ya wax nañu fan mooy yoon bi inna allah astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi yàlla ci boppam moo njëkk a wax ni aljanna man maye wu ko dama koy jaay inna allah astara min maa ngi koy jaane jaaye seen bakkan yi seen bakkani yi ak itam seen alal yi ah, su ko kon euh, seeni jëf wuute nak dal jëfi ku bëgg dem aljana ah ndax taxaw fi wala nga dugg sa ruq jël sa ordinateur wala sa téléphone tim nit ku baax loko mën ta xamal ci lu baaxut waru la may sañ-sañu nga nek sa ruq tabarakallah def lu la neex bi lu neex tasaare ko aduna yépp di ci tek seen bët lolou du yoon ku bëgg dem aljana guddi jot ñepp tëdd di nalaw yow lo loy def ludul, di tepp ci miru jambur di jël seen alal ku la ci gis boko ko jam ko mu faat wala ngay agresser nit ñi du jëfu ku bëgg dem aljana te ñooñu ma la limal ñepp ko ci wax bu tëddee japp na ne buy di dem aljana ci luñ ko tek aljana yalla ji nak yalla neena na dama koy jaay de faaw nga noot sa bakkan deug ma jaral la ah mbir mi neex lol nga bayiko mbir mi metti lolou nga dëgër ngir jëm yalla yoyu moy joxe aljanna waye tabarakallah tëdd di law rek lu sa bakkan laaj rek nga def hmm? ba pare nak ya gëna yaakar nit ñi dem aljana te ko wax nga yobbu ko safara hmm? su ko defee mu ne loolu daal tabaarakallaahu euh, bokk na ci lii gàllankoor seeni ñaan yàlla nañ ci yàlla musal ba ca toppit mu ne ñu ñëpp gëm nañ ne safara am na ah gëm nañ ko te xam nañ lañu fay yóbbu waaw ah, mu ne yéen ñëpp ah gëm ngeen ne an naara xaqun waaye nag walam tarhabu minha waaw ah, nangu ngeen ne safara am na ndax yàlla moom ba mu waxee na la am la anna na min al jinnati si wannaasi ajmaina la dégager responsabilité waaw kon kenn ku nekk nag sa rôle mooy jéem a xool lu fay yóbbu nit ak lu fay muccal nit waaw waaye nag nee seen yéen daal seen jëf jëfi ku dawut safara la waaw lépp lu ngeen di jëf rek bu fekkee yàlla àtte na leen ko piir safara moo yey ci fekke yalla attane len ko yalla ñewul ak yermandem deug deug yow mi ko def sax xam nga ni safara mo yey ci yow ah waye nak dawu len ko ci jëf yépp buñ ko naté rek yoonu safara rek ngeen jël yalla ci yalla musal waaw ye ñepp wax ngeen ni innal mauta haqqun ah waye nak walam ta'tadu lahu nangu ngeen ni de amna lu lu lu lu am la ah nah, ndax kenn ku nek budul sa bay wala muy sa yay wala muy sa mam wala muy sa rak wala ku meuna don ci yow don nga dund ak mom nga gis ko mu am ay soxla comme yow di xey di wacc di sangu di lek di nan nga xey bes tabarakallah wàqi suuf ba mu nga duggal ko ci kon kay yow gëm nga ni de am na ah, yow mom xawma werante ti yek nga ni dee amna, parce que jël nañu nit ci yow ko benn kër wala ben lal ñu suul waaye nag loolu yow jànge woo ci waaw loolu yeewu la waaw ki ne kat kii kat balaa yàgg mën naa koo fekk ñu def ko ni ñu ma def ndax bi muy nekk ci kaw suuf moo ma ëppoon di soxla fuuf ëppoon ma kàttan fuuf ëppoon ma wërsëg fuuf waaye la ànd ak loolu yépp la yàlla taxañ jël bakkanam ma gis loolu bu la waarul bu la waarul gisuma lan lam lan moo la war a mën a waar ba nga mën a préparer nag de parce que yow xam nga ne lii ci ngay tàbbi kon nag waajal ko waaw ah, waaye nag mu ne yéen ñëpp gëm ngeen ni dee am na waane nag waajalu leen ko waaw ah, te itam nag mbokk yi ah, ñu xam ne mag bàmmeel moom mooy la nga xam ne tabaarakallaahu lu fa waay jiitalul du ko fa fekk moo xam lu baax la moo xam lu safaanu la waaw waaye loo fa fekk rek bul ne lu tax ñu may defal lii nanga xam ne yow yaa ko fa jiital waaw loolu nag lu jara bàyyi xel la kon nag innal ta xaqun waaw deekat lu am na kon nag dëggal nga ko eh, tabaarakallaahu nanga ko waajal waajal dee nag mooy bu mu la bett ndax jëf jooy mën a def rekk war nga xalaat ne jëf ji may jëf dee mën na ma fee fekk su ko defee nga rafetal jëf ji waaw ndax itam nag mubaasul abdi ala ma mata alayhi nit ki wax nañu ne ca na mu deewee noonu lañ koy dekkale xam nga ni nag ki doon doxi mbokk ba accidenté ci yoon bi dee walla ngay dem jàkka ja ci yoon bi wala nga dee ci julli wala am na deewin yoo xam ne moom dafa yaakaar la yàlla rek moo xam waaye nag imaginel tey nga demoon beneen làng ga yaa yaa ngi ci yaa ngi ci baar ba yaa ngi ci tabaarakallahu euh, xeetu tabaarakallahu ah yooyu bu ci nit deewee ah des na ko ñaanal waaye nag tabaarakallaahu dalul xel dalul xel waaw moo tax nit ki war nay xool chaque jour rek fi mu war a teg tànkam ni balaa ma koy teggi rek dee mën naa ñëw su ko defee dafay am solo yit ci yàlla doonte nit ku bon nga ñu ne ah moom kat da doon julli ba faatu loolu rek dana neex yàlla ah da doon julli ba faatu ci julli ka xam naa ni daal mooy gën moom kat ci baar bi la nekkoon di màndi ba daanu faatu moom kat ca soirée ba la nekkoon ba daanu fa dee yooyu dalut xel de su ko defee euh, nañuy baril daal li ñuy nekk ci jotaay bi nga xam ne bu ñu fa dee fekkee rek ku ko dégg sax dalal sa xel yaakaar daal di am yàlla nañ ci yàlla dimbali waaw euh, bi ci toppit mu ne yéen ñëpp. bu ngeen yeewoo yéen ngi ci ay bi doomu aadama yi waaw yéen ñépp bu ngeen tëddee ba yeew li leen di yitteel rek mooy chaque jour yaa ngi jéema xool ayibu doomu aadama pour nga mën koo ayibal ba sax yow nga fàtte say ayib yow te mën na am sax yow yaa ko ko ëppale fuuf nag ah mën na am yaa ko ëppale ayib fuuf waaye gisoo say ayib way bis bu nek rek yaa ngi luññati ayibu doomu adamay yi waaw fastaghaltum bi uyubin nasi, way nak wa nasaytum uyubakum waaw yéen dal bes bu nek yene ngi ci ayibu doomu adamay lu way xamal nit ci lu ñaaw fexé musib siiw loko xamal ci lu bax nak mom du jaral wax yow dal lu ñaaw li rek ngay netali moo tax gis nga yàlla subhanahu wa taala ci maandoom wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nit ki bu faato sax ah donte xamal ngeen ko safan waye nak fazkuru maxaasina mawtaakum na ngeen fàttaliku yu baax yi ngeen xam ci moom ndax yàlla mën naa dëgg ci loolu tabaarakallahu ah yërëm ko waaw uzkuru maxaasina mawtaakum wax leen yi seen néew yi rafetle waaye am na ñoo xam ne dañuy fàttaliku ci néew loo nga xamante ni tabaarakallaahu kenn bëggul ñu fàttaliku ci moom rawatina bu tëddee waaw su ko defee mu ne kon saay su ngeen yeewoo rek yéen a ngi ci seen ayibu tabaarakallaahu moroom yi ba fàtte yéen seeni ayib kon nag yàlla nañ ci yàlla musal ba ca toppit mu ne yéen ñépp wa defantum mawtaakum waaw walam taatabiru bi saay su ngeen xëyee di ngeen jàpp kenn ci seen nit ñi yóbbu ca armeel yi waaw saay su ngeen xëyee di ngeen am ku ngeen xam ku ñu leen tàgge ne leen diwkat génn naa àdduna bu ko defee nga daal di sol sa yére dem fekkee ni ñu koy robee wala ku la jege lool waaw saay soo xëyee daal fii mu toll nag ba fa gën a takkar naa si waaw yaa ngi ci mission boobu denc ñëwaat denc ñëwaat te loolu amoo lenn loo lenn ci mi ngi ni dafa di denci di denci, xamal ni bés bu ne bés a ngi ci kanam yow la ñuy xamal ni ci kanam yow lañuy jàpp denc comme na nga doon jàppee nit denc su ko defee kon nit ki bu suulee nit ni moom war na ci jàng ne kat kon nag sama bosa ngi ci kanam balaa yàgg moo ngi ñëw su ko defee ibrahim ibnu adham daal ne fukki mbir yi daal tabaarakallaahu xam naa ko ci yéen ni ah mooy gàllankoor seeni ñaan fukki mbir yi fukki jikko yi mooy gàllankoor seeni ñaan kon nak ay jikko la yoo xamante ni mbokk yi euh, jullit bu ne war nga cee bàyyi sa bopp xool fan nga toll ci sa digganteeg sa borom nga waslu ca àq def ca sa kéemtalaayal kàttan xool fan la sa jëfin toll ak ci li alquraanu yàlla bi maanaam li yàlla jàngale yow na yàlla bëggee ngay jëfee ak ni ngay jëfee ndax loolu méngoo na xool ki nga wax ne moo la gënal sa ndey moo la gënal sa baay di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax la mu woote di sunnaam boobu yaa nga ca waaw ndax li yonent bi woote ak ni yàlla wax ne nañu toppee yonent bi ndax yaa ngi ci loolu kenn ku nekk xool ndax xéewal yi la yàlla defal subhaanahu wa ndax yàlla ngi ciy yëg boppam waaw waxuma yow nga yëg ci sa bopp waaye ndax yàlla mu ngi yëg boppam ci loolu mu la defal kenn ku nekk xool sa diggante ak seytaane ban relation nga am ak moom ndax bokk na ak relation bi nga war a am yàlla wala relation bi nga war a am ak yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kenn ku nekk ginnaaw bi nga dëggalee ne aljanna am na te nga bëgg a dugg aljanna nanga jaar ci yoon wi lay dugal aljanna inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura kenn ku nekk it ginnaaw bi nga dëggalee ni safara am na te xam nga lay yóbbuwaate safara te bëggoo dugg safara kon nga bàyyi yoonu safara maanaam di def loo nga xamante ni payooram du lenn lu dul tabaarakallahu dem safara yàlla nañ ci yàlla musal kenn ku nekkit di am yërmande wala ngay xoole sa moromum jullit sa moromum nit sa bopp dah ndax itam nag ku amul ayib yàlla bind ko ci kaw suuf waaw balaa ngay lijjanti ayibi kenn neena na nga lijeenti say ayibi bop ba pare ay na gis nga nit ku nek say ayibi bop warna la warna la doy nak soxla ba doto am sax soxla ci ayibi kenen kon kenn ku nek na nga yarat nga jangat sa bop ci lol mu yit it tabaarakallahu kenn ku nek li xel te xel mën ko nangu say so amé sa mbokk andal ak nit ñi yóbbu ca nee na na nga gëm ne balaa yàgg yit yow lañuy ñuy yenu yóbbu ca armeel ya nee nii daal suñu ko dee dunde lu ñu ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko lu ñu tabaarakallaahu topp yàlla yàlla nangul ñu ko su ko defee mbokk yi ñu ngi jégalu bu baax a baax a baax ci tabaarakallaahu euh, temps bi ak itam nag euh, gëj a ñëw àndaat ak yéen ci seen émission euh, léppi diine tey daal loolu lañ leen euh, di indiloon macha allahu di ñaan yàlla subhanahu wa taala euh, incha allahu mu defal ñu dégg ak topp ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu réew mi daal yàlla nañ ci yàlla defal jàmm ju sax rek nag waaw yàlla nañ ci yàlla defal jàmm yàlla nañ ci yàlla defal jàmm yii nga xam ne moo nekk ci sunu kanam tabarakallahu te euh, mu ànd ak seytaane lool mën a indi fitna lool yàlla nañ ci yàlla tegal loxoom nga xamante ni yàlla dina may ñëpp dal ba nga xam ne rek luy jàllale te bu jàllee dañoo war a continuer di dund continuer di xëy di liggéey ah tabarakallahu continuer di di di bokkaat li nu bokk bu nu bokkul ndey ak baay ñoo bokki maam wala tamit bu la ca gën a tuuti sax mooy ñoo bokk réew mi loolu rek def nañu ñuy mbokk kon su ko defee ñun ñëpp rek ñu delloo si waat suñuy xel ah, ñaan yàlla subhanahu wa taala ah, mu defal ñu jàmm defal ñu tawfiq ak taysir ñu ngi delluwaat di ziyaara kilifay réew mi ah, ci wàllu diine ak tabarakallahu ci wàllu aada ñëpp rek di dellu si waat ba ci kër gi di ziyaara tey ñaanal kër gi RMB yàlla dolli fi jàmm yal yàlla dolli ko yaatal Eh, tabarakallahu ñi fi nek di fi liggéey yalla yalla dole doole taxaway yeb eh, sen mbokk al imam haji ahmad baro ngegen mo ñewaton rek andot ak yeen ci sen jotay bi di lepp diine ñu ngi ñaan yalla lepp luñ fi wax tabarakallahu te mu rafet ñu xam ci njàppandalu borom bi subhanahu wa taala lepp luñ fi wax tabarakallahu te mu eh, ñagas ñu xam ni nit la ko nga xamanteni bi ku matul won rek تبارك الله موتون واخ ندخ الكمال لله وان يالنا يالا دفال ديغ اك توب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معك من النصر تبير عبد أمامك من النصر تبير عبد أمامك من دون نبي الله أنت خير خير بشر كل جيوب سيدنا النصر تبير عبد أمامك أمامك نشر تبير عبد أمامك لنا نشر تبير عبد أمامك لنا دون نبي الله أنت خير خير بشر كل جيو سرنا نشر تبير عبد أمامك أمامك من النصر تبين رعب أمامك من النصر تبين رعب أمامك من دون نبي الله أنت خير خير بشر كل جيوب سيدنا النصر تبين أؤمن أمامك من النصر تبير أؤمن أمامك من النصر